ne lépp loo xamante ni état bi war na woon ko ak dëkk bu sell bi def nañ ko ndax yow mi dëkk ci biir dëkk bu sell bi bu la confirmer non xam nga côté boobu ngeen ma laajee mën naa cee wax donte dana metti ndax màggal moo ñu fi indi waaye nag ministre de l'intérieur su waxee loolu defu fi dara ndax yéen ñi dëkk Touba question bi mën ngeen koo tontul seen bopp ndax assainissement am na Touba dama jàpp ne dëkk su demee ba nekk deuxième ville di Sénégal ci wàllu démographie ci wàllu population ci wàllu économique jaadu woon na moo am assainissement bu sérieux assainissement bu sérieux mooy ñu jël mbedd yi xotti ko def ko ay canal ba kenn du amati ay fosse septique ci biir kër ca Touba ba léegi kër goo dugg muy yissa sax ci jumaa ji amul benn assainissement ma jàpp ne kon jaadu na ñu amal assainissement fii ci Touba kon su ñëwee di wax loolu jàpp naa defuñ fi dara. waaw euh, solution bi mooy ñu jëlee leen fi ëllëg ñun suñu ñëwee mën a defar réew mi parce que ñëpp xam ne li leen war defu leen fi dégg ngeen scandale scandale bi nga xam ne tey moo am assemblée nationale. ah suñu réaction mooy coow li bari na li ñu tudd tuddagun yéene wuñ leen ko waaye ñaar suñu ñaari collègue bu député lañ tudd yoo xam ne benn bokk yaakaar lañ taw lañ lañ bokk muy ku ñuy wax Mamadou sàll ak ku ñuy wax bi Biaye ñoom ñëpp ay député lañ. kii nekk président conseil départemental bu euh, Sédhiou nekk aussi député kenn ki nekk aussi président conseil départemental bu euh, Salémata mais aussi nekk député keneen ki ñu ci tudd aussi tamit ah, député la woon ci douzième législature actuellement c'est le président conseil départemental de Saraya ñoom ñett ñooñu la ñu tuddagun ba fii ne man di wax ak yéen amul kenn koo xam ne ci opposition bi la bokk kun ci tudd amul ndax su amee man danaa ko yëg parce que danañu ma informer mais mais yëf yi dafa war a bar gis ngeen bi ñu yëkkati xalifa Sall ak Sonko ak ñeneen ak ñeneen mais dafa gaawoon pourquoi pas tudd nañ leen mais yoon na dem ba sër rek doxal li muy doxal su ko defee ñu déglu leen yóbbu leen si kanam yoon donte suñuy collègue lañ yéene wuñ leen ko waaye nag comme dugg nañ ci loolu bu ñu sañoon mbir mi leer loolu daal mooy suñuy taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah